diggante président région maison des éleveurs ak président départementaux yi pour waxtaan ci li nga xam ne ci la ñu jublu nan la ñu ciy demee mooy préparation yeesalaat suñu bànqaas national loolu nag bu ñu koy xalaat aussi war nañu waxtaan ci ban façon communication la ñu soxla noonu en tant que ay éleveurs mais aussi en tant que ay njiit ndax gis nañu ne difficulté yi bari nañu léegi ci àddina bi mais aussi conflit bi bare na ci suñu biir réew surtout nag lu demee ne wàllu foncier mais aussi jafe-jafe yi faral di am diggante béykat ak sàmmkat mais aussi yooyu yëpp naka la ñuy war a taxawee pour di ci communiquer pour que jàmm gën a mën a delluwaat ci suñu biir ñaareel bi aussi ñu waxtaan ci naka la ñuy def ba ñu mën a impliquer mën a dugalaat jigéen ñi ci instance de décision yi ak xale yi loolu nag dañu koy waajal parce que am na directoire national de femmes en élevage spécialement pour jigéen ñi la mais aussi tamit jigéen ñi war nañ nekk ci biir maison des éleveurs ñu seet naka la ñu fay nekkee ba du ñu affaiblir aussi directoire de femmes en élevage ñaareel bi mooy xale yi parce que xale yi aussi boo leen di dugal ci lu mel nii dafa laaj aussi ñu tànn leen tànn bu baax ñi nga xam ne c'est des acteurs véritables ñaareel bi aussi seet yan formation lañu leen war war a mën a defal mais naka lañ leen di préparer parce que aussi bëgguñu dugal ci euh, dugal ci koo xam ne kii dafay am détournement d'objectif nga ñëw war a nekkal éleveurs yi di leen waxal mais aussi ngay dem jël organisation bi def ko jumtukaay yooyu wute alal wala yooyu seete leneen wala yooyu duggee ci politique te fekk organisation ab politique la bu ñëpp bokk parce que affaire bi du question race du question secte du aussi tamit euh, ethnie kon métier la loolu pour que ñëpp mun koo respecter. waaw effectivement comme ni nga ko waxee tey tous les quarante six départements et quatorze régions du Sénégal ñu ngi fii toog ñoom rek ñoo fi nekk loolu nag boo seetee secteur bi ñii ñuy wax ne tey dañuy dem ay immigration clandestine doo ci gis doomu éleveur loolu nañ dem ñu vérifier ku ñu xool ñaareel bi aussi boo demoon tey ambulant yi nekk Sandaga doo ci fekk doomu éleveur pourquoi parce que éleveurs yi seen doom yi dañoo rester ci secteur bi rester ci métier bi loolu moo tax aussi ñuy saluer di féliciter président de la république ni mu ñu jàppale woon 2017 ba nga xamee ne am na ay problème ci taw bi jur gi dee mu dampe éleveurs yi un milliard pour que ñu mën a tëggaat seen cheptel ñu taxawal ko ndax dinañu mën a rester ci biir métier bi loolu nag bu ànd ak formation ak ay organisation yaakaar nañu ne secteur bi dana continuer yore nit ñi parce que boo seetee tey ñiy jaay ngooñ ñiy jaay ñax ñiy jaay buum ñiy jaay paak ñi nga xam ne dañuy def boucherie ak ñi nga xam ne ay teefank lañ wala ñuy liggéey ci ay der ba ñiy jaay aliment de bétail ñii ñëpp éleveurs yi ñoo tax seen métier boobu di mën a dox biñ ci mën a jëriñ loolu nag moom mooy indi même aussi forte pression bi nga xam ne dafa am ci wàllu suuf parce que population bi dafay yokku dégg nga suuf si du yokku comme dañuy yokku nag noonu aussi war nañu yeewu ñu gën a sàkk peki surtout nag secteur bi aussi dafa am concurrence parce que am na ñeneen ñu bees ñëw ñoom it ñu defee euh, élevage ci beneen façon kon nun aussi war nañu seet élevage bi xam ne nañu koy defee ñu ba ko mën a organiser ñu organiser ko mu ànd ak jamono. waaw ah, na euh, diisoo nañu ci waxtaan ci journée bi nan lañ ciy demee mais aussi lan moo fay nekk suñu taxawaay loolu nag lu rëy la ci ñun parce que président Macky Sall dëgg nañu mu annoncé ne deux mille vingt quatre du présenté wu ci élection yi. te am na lu baax loo xam ne lii aussi jot na koo def ci secteur bi kon moom aussi war nañu ko mën a remercier ñu xalaat aussi prochain président de la république aussi lan la ñuy wax ak moom te journée bi journée la boo xam ne bi journée de communication ak présentation da nga sargalante suñu diggante ak njiitu réew mi. bon donc euh, waxaguñu ah, date bi mais président mooy xool calendrier am mais ci biir décret bi moom le 26 novembre la waroon a doon. biiru euh, donc tenue atelier bi à Thiès ñu ñëwoon bokk ko ak euh, mbokk responsable secteur de l'élevage pour euh, donc seet naka la ñuy waajale renouvellement instance de décision ou MDE. D'abord ci pour son excellence monsieur le président de la République. nga xam ne c'est le premier responsable du secteur de l'élevage ak ci turu monsieur le ministre de l'élevage am naa mbégte vraiment donc présider euh, cérémonie d'ouverture atelier bu am solo bi euh, wax naa ko sànq bi may jël kàddu commencé na yàgg tuuti ak secteur élevage ak ay responsable pratiquement ñi fi nekk yépp am na vingt ans de parcours boo xam ne def nañ ko entre man ak ñoom mais également yàlla def na euh, ci instance yi ñu mun a nekk yëpp ci position yi ñu mun a occuper yëpp vraiment dañoo liggéey ak le secteur de l'élevage à travers ses responsables déjà mun naa seedeel ne e dafa nekk structure boo xam ne dafa taxaw di défendre les intérêts des éleveurs au Sénégal di ko liggéey nag ci démarche bu dal dooleen leen dégg mukk ci ay pression ay rajo ay plateau di ŋañ walla di yàq MDE comme yeneen yi bu ñu amee seen jafe-jafe dañuy dem fi ñu war a dem bu dee niveau régional gouvernance bu dee niveau national ñu dem daje ak monsieur le ministre de l'élevage bu dee le niveau supérieur ñu dem daje ak son excellence monsieur le président de la république donc maa ngi leen di sant ci seen esprit de responsabilité boobu di leen renouveler aussi que saa yu ñu jógee état dina leen accompagner en tout cas fi ma jeexalee ci prise de parole bi bi may adressé wu aux responsables du secteur dama leen ne liggéey bi baax na dëgg la xam naa bu baax li MDE di def pour défendre intérêt éleveurs yi waaye am na lu manqué mooy la sous-représentation des femmes ci instance de décision yi nee naa leen nag ñaari fan yi ñuy xalaat noonu buñ ma mënee yokkal loolu pour que renouvellement yi di ñëw ñu am ay jigéen yu gën a bëri ci instance de décision yi yaakaar naa day gën a baax day gën a rafet te day gën a jox doole kuréel yu mel ni MDE jërëjëf merci